la war waaw. waaw les gens ne portent pas mais les gens prêtent. fii du jaay prêt à porter ku xam ko la war xamal ko fii balu la ñuy ah. mbaax la fi fii Colobane def jaay téléphone di jaay garabu sàcc bi doon dóor téléphone bi. kaay naa waroo gis mooy juróom-ñaari pecc bi. da ngay lambale man gëm naa ko gis xilloo jar. booy xam nga ma gën la liggéey. non gën la liggéey. booy man maa la gën liggéey ñaari yoon xam nga euh, booy man man sàcc la. pour wax leen dëgg quoi sàcc la. sàcc bu dee sa war a la fee. fee sax damay sàcc dugub. lu mu def fenn xanaa kon maa mën a Sadio yow man fii bi bandi di jafe benn bandi moo fi nekkoon sel man maa daan nekkoon Pikine daan sàccee Pikine ba biir Colobane man sel man lañ demoon six mille huit cent quatre-vingt-dix dem jëndi booy bu raxal astafurlah waaye yow kay xool fii bu dul ay cicatrice xool sama tus bi amul tus xool ah d'accord xoolal li lépp ay cicatrice la xool xoolal dama lay wax eh, cicatrice dagg bi gën a métti la lay wax sama pot bi yàq bi daa dañu maa jël der yi maa sale ko tapaat ko bës maa du kon maay bandi yow ku leen niroog ci bandi man man xaw ma bandi yi de euh, yow tàmm nga lii seen kër kilifa bu wax ma ne ko bàyyi ok xaw ma bandi yi de moo tax xamoo bandi déedéet xam nga ilam daan naa dégg turam rek. dina ma baal yéen a ma baal ma. waaw daan naa dégg turam. daa ma dégg turam. waaw anam. waaw xamatuma fan la nekk de. ana Alex. Diouf. ana Alex. Alex dama koo xam sax. booy Alex a ngi nii. kan. booy Alex a ngi nii laa wax. waaw man maa doon tëb biiru saa nekk bi ñu kii booy man ñëw maa ngi nit man bi may ñëw dëgg sama baaraam wi laa daan dagge bu ma laal si suuf fenn ma de le set laa tànkol kon daal loolu ah. ñu jógee dëkk ba ñoo fii di ñëw ah. ñoo ñëwee nag ci benn diriyaan bi laa def ci diriyaan bi nga doon waaye dal ma dal ma woon

xam nga baay man su ma nelaw su ma nelaw day ñaaw li may tuddee baaxul. ah tëddinu golo nga yor day am ci ay nit. li may tuddee loolu ci waa bi ñëw bu sa yaay ñaawee tëddinu ñaaw koy tudd. waaw ubbi say tànk waaw xam nga nag dafa yéex a nelaw mm-hmm. mu jékki-jékki sama bunt bi tijjeeku kan li mm-hmm. su ma daa jàppoon damay ñaaw ba dafa di góor waaw day xew waaw xam nga du ko ci bàyyi nga xam naa sama fulaak sama fay moom papa man jigéen ñi waxuma ci ñoom dara dañu affiché ñee dawal kaw déggoo li ma la wax mbedd Dakar boo bëggee dee ñëwal Dakar soxla jekk bi loolu liggéey dañ koy lekk nii lañ lay def nii xanaa yaay Dakar daal de dëgërul ñoo koy dóor xam naa yow la jaar jaar naa ci amoon du ma yërëm du ma laajte moom li ci gën a bon du ma laaj daa furi bés ma jox loolu lañ mel papa loolu ma bés sax non damaa jékki-jékki rek gis ko jàpp sama fii di ñëw di xëcc sa tànk di xëcc sama tànk damaa jékki-jékki mais sama cër yi moom dama ci benn waay xoolal daa jàpp sama poste onde yi rek pës sax mu daal di tuuru ah daa jàpp sama poste onde yi mu daal di tuuru ah kooku taalika waaw xam nga li ci gën a neex waaw kay tey ci gën suba daa jot nga yeewoo suñu dëkk suba daa jot nga yeewoo suñu dëkk seen Pape Baye biir bind yaa ngi pardon Pape Ibrahima Sopp da nga jaay ma. booy taxawal taxawal. ah Pape Baye def na. waa jëm. ah daa ko maa gis góor ñoom loolu bëgg bind. ma seen booy booy waa déglu déglu ca booy lii du bind bind. lii fer la. waaw lii laa dund nga naan fer. booy booy doo ma dimbali ñun xam nañ ñu mbir. booy ñun xam nañ mbir mbir xamee nañu fer. waaw lii ay bind la nee naa la ay bind la man maa ko nas di ko jaage. booy bu ñu werante li nga nas baaxul li nga nas baaxul te yow sa bind bi sa fer yi daa yàq nga am espace daa jaar ah maa ngi koy perte lii ah maa ngi koy perte. ah papa yi lii na ma wut bu fekkee ku digg da ngaa tëdd bu digg du nangu. papa papa yi ku nekk ak toujours am donc bàyyi ma jaay si. lii sëñ bi du ah booy doo ma dimbali ngir yàlla ak yonent booy man def naa loolu yi sept ans waay booy booy man ngir loowee naa daan yaroo xanaa daan yéen ñoo ndax lan xëy toog jàkkaarloo ay fer mooy waaw léegi Pape Baye lan mooy bin bin. déedéet damaa bëgg nga laaj ma ko maa ko léegi papa Baye lan mooy bin bin. déedéet booy damaa bëgg nga yëngatu ko une fois. wax ma lan mooy bin bin. mooy naan nga point bu sarsi. eh wax ma lan mooy bin bin. mooy naan nga point boo xam ne naan lay plaire. eh papa Baye wax te ci seen i mag jël góor bu baax ñoo ko sa wet cuuraay ñoo doo fi jóge dajul fi tey nga kat te tax ku moom yëpp ay xeeti cuuraay ah damaa sëy ah eh papa bay wax ma lan mooy bimbim te nag fer bi ci ëpp importance mooy bi ñu defaree boobi naq ko dëbb ko ëppal nag duñ ci yi naa muy noonu. waaw gis nga fey bu raasaloon sa ndig te doo ko xam souvent boobu ñaar lay doon yu bu cóolee ba cóor bu ñu amul kenn cóolee ba cóor ñu la

bi day verte des fois day dugalante vert dugalante tàkk kon kii si yow damaa yàgg ci nekk xaw am boo xam ne day def dara cristal la ñu noonu boo moo lay ñuus dama xam du la laal da koy romb rek naan la ñuus lii la ah man def naa mën a 15 ans. fere yi damaa xam ne kenn utilisé ko yi day keppi mooy fekk naa am ay catégorie eh eh yamal yow. Eh, yéen sax napp gën leen soxla fere yi. am na fere am yaa la ci defar ay ñaam yaa ko yóbbu ci ñu ko yoroo yii keppe billaahi téem ko dara. dafa suñu waaw xaaral day yàq sam yaay kaama jàngal la sàcc ndax bi gees na gees waaw ma tël yow est-ce que mun nga kaa. Hmm. waaw daan naa kii répété la ko de. laa bari bi laa